awuzu billahi a sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xabli safinatan bi kullil janna min daaratin min na niyaasan min na ataaniyal marka bu fii daari min nan inda tasin tadxulani daari min nan mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla sunu borom julli ci sangi sangi Seyduna Muhammad ñoo ngi sant sëñ Tuubaa Xaadimal Mustafa di ñaanal sëñ Tuubaa Cheikh Muntaxa Basiir mu yàgg loolu te ànd ak jër ba naal yi mu naalal lislaam ak li mu yéene ci liggéey Sëñ Tuubaa mu def lu koy njortam te àggale koog sagoom yàlla may ko gudd fan ak wér te nu ànd kook moom di jëfe ndigalam koy bàyyi ay tereem noo ngi sant yàlla sunu borom bu baax a baax ginnaaw bi nu ñaanalee mboolem kilifa diine yi di ñaanal képp koo xam yaa ngi soosu daal dox te lislaam rekk tax ñoo ngi sant yàlla nag sunu borom ñu ko see mu Cheikh mun Muntaxa waxee ci nattu bii nga xam ni muy balaa boo xam ne yàlla sunu borom ñu nu sàkkute moom moo xool ay jaamam ba mu doy ko mu nattoo leen ko wàccee ko ci ñoom sëriñ bi wax ni nan sant yàlla te tuub te jéggulu suñuy bàkkaar te xam ni moom ab jaam la bu sa boroom yebal muy muy doxee ndigal kon ñu nit ndigal bi ñu suñu borom digal nan ci nekk sëriñ bi nag di ñaan sa borom teggil nu ko waaye nag du tee it nuy sabablu sabablu gi mooy li nga xam ni mooy tax ba doomi jàngoro boobu bañ a dugg si ci ñun saa su ne rek sëriñ bi ne nañ ci déggoog waa kër docteur ca lañu wax ñu ànd ak ñoom te du yàq dara suñu jaamu yàlla moo waral jumaay Tuubaa gis ngeen boobaak tey kuréel gii nga xam ne ñooy kuréelu muxaddamatul xitma yor liggéey bii ci jumaa ji ñoo ngi leen di sant cant koo xam ni muriti sëñ Tuubaa yëpp ñu ngi leen koy sant leen ko gërëm ci taxawaay bi nga xam ni taxaw ngeen ko ci jumaa ji ndax nag lii ndam la ci lislaam ndam la ci sëñ Tuubaa ndamal lislaam ndamal jullit yëpp la li sëñ Tuubaa maamam yéene woon ak lim ñaanoon ci dëkk bi defal nag ko te nag sëñ Moussa Ka dafa ne ndogal bu am day lëkkaloo ko xew-xew saa bu mbir xewee rek danañ xam fan la pas-pas yu toll waaye nun murit yëpp Cheikh Mouhamad Mountakha la ñuy déglu lu mu bëgg rek loolu lañ bëgg fu mu joxoon rek foofu la ñu xool moo waral ñu ñëw tey jii ñëwaat ñëwoon nañ fi ñëwaat fi te fas yéene nañ fee ñëwaat ci ndigalal soxna Baali Mountakha mi nga xam ni mooy liggéeykatu soxna jaara bi ki nga xam ne suba ngoon gu dégg bëccëg benn yitte rek laa am muy ne ci ndigali Cheikh Mouhamadul Mountakhal Basir ak di dàq mbégam ku ne xam na ni tawat gi bi mu wàccee ci réew mi Cheikh Mouhamadul Mountakha moo njëkk a yëkkati ñaari téeméeri million contribuer ko ci état Sénégal jàppale leen ko te loolu bokkewut di nga xam ne moom la def fii ci biir Touba taxawu ko ci biir jumaa ji ak mboolem jumaa yi ak mboolem daara alquran ci dëkk bi ak sancaan yi kenn ku ne auto autosuffisance boobu nga xam ni alimentaire bi nga xam ne état bi def na ko Cheikh Mouhamadou Mountakha moom it def ci wàllu boppam jël engagement singulier am sancaani ci Touba fenn fu ne la fa te war faa dem ci dund Cheikh Mouhamadou taxaa jox leen ko soxna Baal na yabaloon nañu fi bi yëf yi door a tàmbali ñëwoon fi indi yu ni mel indi ay masque indi ay gel ak omo saabu waaye nee nag digganteem ak waa ma moom saa su nekk rek lépp lu ngeen nekk moom soxna Baal mu ànd ci yéen ndax yéen fii ngeen ne taalibi Sëñ Touba yëpp ngeen fi nekkal ndax barab rek la Sëñ Touba am fii maskan yi gum wax Touba la wax te buñ nee Touba barab bi tax kon soxna si nee na lu ngeen nekk fas yéene na ko ànd ko yéen ndigal li leen sëriñ bi doxit ngeen nekk ci bu baax te jàppale ko ci ba ni ko sëñ bi bëggee amee na ko noonu moo waral moom du tàyyi benn yoon mu yebal nu nu ànd ak jëwriñ Yuusu Yàdd ak sëñ Mordoo mii sët sët Matar Bintaloo sëñ alaajuloo ak mboole mbokki taalibe yi ngir ñëwaat tey indi yi nga xam ni mooy bidon yi nga xam day ànd ak robinet yi ci ndigal li ni ngeen ko bëggee balaa kenn dugg ci jumaa ji mën a raxasu yi nga xam ni moom la ñuy xoolee température kenn ku ne ngir xam ba xam fan la sa température toll ndax am na foo xam fa température bi tolloo dañ lay yóbbu ci kër docteur ñu testé la xool ba xam ndax doom jàngoro mi ngi ci wala nekkul ci yow moo waral mu indi appareil yi boole ko eau de javel nga xam ni moom it dañ koo préparé defar ko ay fani fan ndax boo ko ubbee rek di nga xam ne wute naak eau de javel yu bari ngir waaj goo xam ni waajal nañ ko ko moom it mu indi ko ak madaar yi ak saabu yi ak omo yeeg ak mbool masque yaa ngi ne nga xam ne ay junni junni masque ngir rek jàppale leen ko ci liggéey bi te xam ni yéen ku leen jàppale ci liggéey bi rek fekk si na Sëriñ Tuubaa ci li mu bëgg neen nag mi ngi sàkku ci yéen ñaan bu baax ngeen ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg lool te ànd ak wér moom it ngeen ñaanal ko ba saa borom dolli ko kàttan ba saasu ne rek ak laxasaayam bu mu yolom benn yoon nay gën a takku rek jëm ci mbégum sëriñ bi ak ci bëggam noo ngi jéggu lu baax ci kàddu yi jërë ngeen jëf. salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu lu bari di leen delloo nuyoo ak ay ziyaara ak ay ndokkeel di yónni sunu nuyoo ak sunuy ziyaara ci soxna Bali di ko nuyu bu baax di ko ziyaara di jaarale ci moom nuyoo bi ak ziyaara bi jëme ko ci kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadul taxa ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér àggale ay yéeneem ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi te yàggal ñu ci ginnaawam ñu yàgg a déglu ay ndigalam yàgg koo jëfe di wax ne kàddu yu gàtt rek ndax lu ñu koy wax rek ci soxna si waxoon nañ ko ndax soxna si moo doxee noonu pas-pasam bépp daf ko def ci liggéeyal Serigne Touba am xëyam am ngontam ay guddeem ay bëccëgam lépp ci boo ko xoolee rek lépp day delluwaat ci liggéey Serigne Touba bu nekkul fii ci jumaa ji ma nga poroxaan su nekkul ci jumaa ji nekkul ci poroxaan mi ngi ci jaam yàlla foofu nag mën ne su ko weesu koo xam ne sa lépp da nga ko delloo ci yàlla ak yonent bi jaaree ko nag ci buntub Serigne Touba te ñooñu kat ku leen di wut boo ko jaaree si Tuubaa am ko xaw ma feneen fu ñuy jaare yàlla wala ñu di fa jaare yonent bi ñàkk jot waaye buntu Sëriñ Tuubaa bu bokk ci moom nag bunt bi waxtu wu nekk saabu ku ñëw danga ko ci fekk ku dem da ko cee bàyyi lii nag ni nga ko waxee léegi njëkkul tey kon moo tax daanaka ay wax matatu ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daf daan wax ne jëf moo mën a yóbbaale wax waaye wax mënut a yóbbaale jëf soxna si nag dafa jëf jëfati jëfati yàlla na yàgg jëf jëf jii de yéen ñii ñëpp ak nun ñii ñëpp ak ñi koy gis ak ñi koy dégg ñëpp xam nañ ni Sëriñ Tuubaa bég na ndax li nga wax léegi rek ci tey Cheikh Mouhamadul Mountakha yëpp mooy liggéeyu Sëriñ Tuubaa bañ a taxaw benn yoon waxtu wu nekk rek Sëriñ Tuubaa di ko am ni mu ko bëggee woon te euh, Sëriñ Tuubaa dafa ñaanoon barab bii bañ a dog benn yoon liñ fiy def jëmmi jumaa ji taxaw te liñ fiy dog def bañ a taxaw waaye nag am na lu mu ci tegoon de ñaanaloon nag ñi ko ñi ko ñi tax liggéey bi taxaw ñaanal nag ko ñi leen ci ñi leen ciy soññ di leen joxe ay ndigal muy kilifa yi ñaanal na itam képp ku leen di jàppale moom nag am na ñaari bara ñaari bara ñaari ñaari place ñaan googu bokk na ci kilifa yi nga xam ne ñooy joxe ndigal yi ndax loolu yàlla moo ko def sàkk ko génne ko ci njabootu Serigne Touba waaye bokk na ci itam ci ñi nga xam ne dañuy dimbale ñi nga xam ne ñoo fi nekk di leen jàppale ba ñu mën a def li nga xam ne mooy liggéey bi kon duggaat na ci ñaar ñaari yoon waaye ñaar yooyu mu dugg yépp itam pasteefam ak yitteem waxtu wu nekk mi ngi ko ciy jox ba mat sëkk kon nag sëriñ bi su ngeen demee nee leen soxna Bali ah nun day dañ fay nekk rek nekkal ci taalibe bi yépp waaye nag buñ ko matee ak suñ ko matu yépp seeral li ñu doon ci taalibe yi nga xam ne ñu ngi fi ñëw yépp ñu ngi leen di gis di ngi leen seeral suñu Tuubaa waaye moom day yaakaar naa ne seereem ci Serigne Touba ci liggéeyu Serigne Touba bii ah mën naa yóbbu mbooloo mu bari man naa yóbbaale mbooloo mu bari waaw kon nag ñun suñu xel dal na ci moom waaye moom it na xelam dal te xam ne képp Serigne Touba laa doon liggéeyal ba samay morom ndaw moom kenn mësu koo dégg te kenn du ko dégg kon nag yoon wii mu jaar te mas te mësu cee wàcc lenn rek lañuy def mooy ñaanal ko yoon wi mu yàgg ci lool lool lool lool ak yéen ñi nga xam ne yéen a koy jàppale ñëpp ak fu ko waay mën a jàppalee rek nañu xam ne daal moom léppam ci sëñ Tuubaa ko delloo kon nag ku mat a jàppale la ba mu mën a mot li yéenam yi mën koo wéy la itam ndax koo xam ne loo am ci sëñ Tuubaa nga koy delloo loo man ci sëñ Tuubaa la nga koy delloo kooka mat naa jàppale ba muy am waaye mat naa jàppale ba muy man kon nag ñun ñëpp li may wax moom du ma ko wax dara waaye ñun ñii ñi nga xam ne yéen teew ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ngeen teewal ak keneen ku muy jëflanteel ku ne nañ yéeg ne soxna si ku mat a jàppale suñ ko jàppalee di àdduna ci boppam lay defar ndax yoonu defar àdduna la aw te maamam kat dara andiw ko woon ci àdduna lu may defar adduna kon nag ku jóg jaar ci yoon woowa yaay koo ko defal dara simple la xam nag ne woon na bu sëñ Tuubaa lenn rek la soxla ci bu yomal xiyamee ba nit ak jinneeg malaayka teew sun boroom ku mu dénkoon jamono daf lay woo boo ñëwee mu natt sa àndaar bu feesee mu de la sant di la sant de la sant bañ ñëpp teg ci seen bët waaye su manqué mu di la tànc ba nga ne lii kat bàyyi woon ma ma dem sa war a sax te bañ ma ko def moomu gën a mu ne bu boobaa nag képp koo xam ne moom lay ka ko ka dara mooy ki nga xam ne bu ñu ko wooyee ay ta la mu bëgg mooy bu ñu ko wooyee ay taalibeem di jóg di natti àndaar di natti àndaar bañ ne ana ki nga xam ne bu tuddee turam ba léegi moom jógagut waaye waa këram rek ñoo jóg di natt ay kon nag wet googu ku mu ne foofa nag ku ko ci tënk ndax waxtu wee gàtt ku ko fu féetewut féetewoo ko fenn kon nag lii rek mooy liggéey kon nag soxna si ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal fan wu gudd ak wér gi yaram ak kattan gu dolliku ci liggéeyal Serigne te lépp nag mu ànd ko kilifaam gu baax gii Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye ak yéen ñii nga xam ne itam yéen a koy jàppale ci liggéey bi te suñu borom xiir leen ci lu baax ngeen bëgg lu baax di ñëw ànd ak moom nekk ci watam di ko jàppale yàlla nañu yàlla boole jàppale ci barke Sëriñ Tuubaa sant nag moom moom mëne su koo weesu te lu day cant rek waxoon nañ ko lu day ngërëm waxoon nañ ko lu day ñaan waxoon nañ ko benn rek la ñuy def mooy lañ ko defee daanaa dégg kilifa gu baax ci réew mi daan ko ñaan naan yàlla boo jéem loo tële waaye moom itam yàlla bu mu jéem lu mu ndax du jéem mukk lu dul lu baax barke ñu sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.